يعبدكم لله رب العالمين انزعوا بخدمة الهادي الأمين يعبدكم لله رب العالمين انزعوا بخدمة الهادي الأمين يعبدكم لله ah bëgg Serigne Touba rek sopp Serigne Touba xam ne mënuñoo bañ teew su màggal bi wax dëgg yàlla xam nga moom dafa nekk dëkk bu tedd dëkk bu ñuy neex wax dëgg yàlla ñoo fi daal yiw gu bare la waaw li ngi ñaan ah ñaanal naa waa Sénégal yëpp maa ngi ñaanal mère de famille père de famille suñu papa yi suñu yaay gudd fan ñu màgg ba fekk suñu njariñ di ñaanal sama borom kër Moustapha maa ngi koy ñaanal bu baax yàlla na ko yàlla defal jàmm góor yërmande boobu góor bu baax euh, man maa ngi tudd Mame Fatou man maa ngi jógee ba Tivaouane ndax màggal gi rek ah man wax dëgg yàlla fii dama fi ñëw sama xol bi seet torop ndax man dama bëgg sëñ Touba waaw chaque année mu jaral ma ma jóge Tivaouane ñëw ba fii ndax bëgg sëñ Touba rek ah maa ngi fiy ñaan daal euh, lépp luñ daan def chaque année daal muy gën di yokk ci barke sëñ Touba di ñaan lépp jàmm ak salaam Sénégal am jàmm aussi loolu laay ñaan di ñaanal aussi sama yaay bu baax ak sama baab di ñaanal bépp mboolam jullit aussi ok merci maa ngi jógee dakaar dëkk ñu wax jàmm gën kilomètre 16 route de Rufisque waaw sant yàlla rek parce que xam nga sëñ bi moom wax dëgg yàlla yàlla dogal muy kenn kennal boobu ko kennal nag wala yàlla coono bu ne mu teg ko ko mu sant ko nangu ko moo tax tey mu am bisam bu mag bii donc wax dëgg yàlla képp kuy taalibe képp kuy julli war ngaa mën a ñëw fii ziar ñaan santale ko boromam moo tax bu nekk yegsee fii dañuy sant dañuy fier quoi dañuy fier doon jullit d'abord fier doon euh, murit macha allah waaw euh, euh, la euh, xam li may ñaan mooy projet bépp nit am yàlla na ko yàlla mottali. rawatina nag suma mbokk artistes yi nga xam ne ñu ngi dans la production dans la promotion wax dëgg yàlla projet yi daal yàlla na ko yàlla mottali barke rasulillah sallallahu alayhi barke Serigne Touba. di wax jërëjëf Serigne Touba di sant nag di ziar sama Serigne Serigne Fallou Abdou Khadre di ko ñaanal yàlla wér gudd fan di la bëggee nag yow aussi vraiment. site bi am na solo yàlla na yalla barkeel lépp tubaa TV ca kaw ca kanam. fàttaliwul tur bi. Fallou Djifa artiste musicien auteur compositeur réalisateur jërëjëf. jërëjëf Amadou man maa ngi jógee Dakar ñu koy wax Grand Médine. waaw ñoo ñëwoon ziar si. ñoo waaye li ñu yëg euh, bu ñu duggee fii sant yàlla parce que ku xam liggéey ku tedd Cheikh Ahmadou Khadim Rasoul rawatina njabootam gi nga xamante ne dañoo nekk fii jumaa ji ku génn li nga yëg mënuloo ko wax ndax mbégteem mbégteem xol la daal mbégteem xol la du day day day lot pour tudd ko mais ñu ngi sant yàlla bu baax bi ñu yàlla may ñu fekkee lii di ñaan suñu bon dafa ñu màggalu jàmm hmm? waa Sénégal dëkk waar réew mi parce que xam nga Sénégal moom dañ ko xamee ci réewum jàmm rawatina nag euh, ku baax kii fi nekk di Cheikh Bamba Khadim Rasoul nekk ci dëkk bi nekk ci biir Sénégal gi kon rafet nañ jot loolu ne Sénégal jàmm rek moo fi mën a am parce que ñi fi tëdd suñu borom am na loo xamante ne dégg na leen ko ci ci ñaan te wax dëgg yàlla ba léegi moo téye ni Sénégal kon ñuy sant yàlla bu baax di di di gërëm daal alhamdulilah waaw man daal damaa am émotion yoo xam ne mënumaa wax dara waaye sama xol dafa sedd parce que organisation bi nit ñu bàyyee ñun troisième âge ñu mën ñoo faciliter ñu dugg ziar bérébu sëñ bi ak njabootam gi sama xol sedd na ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di ñaan ci yàlla daraje Xaadim Moustapha ak yonent tedd bi yal na yàlla defar lépp ci Sénégal jàmm rek am ñépp juboo kenn ku nekk góor góorgóorlu suñu njaboot bi yàlla jubal leen ba ñu jaar foo xam ne moo ñu gënal jërëjëf jërëjëf la télé. fan nga man Thiès laa jógee. liggéey nga ah ban liggéey laa am. yëg yëg ah? sama xol sedd rek ma kontaan di sant yàlla. ak xaadimal Moustapha ak njabootam gi wallaahi daraja yonent bu tedd bi maa ngi sant bu baax a baax lii rek laa doon xalaat li may 18 safar ak yëpp pour ziar béréb yi rek surtout kër gu mag rek moo ma def sama xol sedd na maa ngi dëgmal na guti bàqa ye sant sëñ Touba ak maam Cheikh Fall di wax jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf Touba jaw nag maam Cheikh Fall waaw màggal gi moom dinañ ñaan képp ki fi ñëw si màggal si yalla nangu sa magal si barki yonte bi si barki cheikh Khadim si barki maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp si barke Cheikh mamour Dia di wax jeul def sun Touba di ñaanal sëñ Mountakha yalla fi tak ak wér di wax sun dum Fall yalla fi tak ak wér ba ñom lepp lu ñu liggéeyal maam Cheikh ak sun Touba yalla ñoko yagali yàggali si barke yonte bi si barke maam Cheikh Fall di wax jeul jërëjëf sun Touba la lakk mam Cheikh Fall yalla tamit yalla ngi dund yow 115 ans sans ordonnance si barki cheikh Khadim jeul jërëjëfati Mbengue Ndour. waaw kontaan nañ torop kontaan nañ dañoo ñëw fii rek GIA si sant yàlla bu baax biñ ñu indee ñu ngi ñaan yàlla heure bi déwén nañ fi teewee ren nañ ñu fi teewee heure bi déwén. barke sëñ ah ñaanal naa Sénégal ñëpp ku ya eh. er nekk ya ya eh? nah. nah, eh, lu fi indi yal na yàlla faj aajo yi heure bii déwén li nga bëgg sa biir xol may sant sëñ Touba ak sëñ bu baax Mbour man sama xol fees na wax dëgg fa neex yàlla sama xol fees na te damay dellu di sant yàlla ak sëriñ bi tax ma Wah, waaw waaw Ami Diallo laa tudd. ah kontaan naa trop moom di ñaan ka yàlla na xéwal bi gën a yokk barki Serigne Touba kontaan naa trop trop Mouhamed wax. ñu ngi suñu màggal nañ wér wér. maa ngi bàyyi ko Grand am am fu ñu ngi sant bu baax Serigne Fallou Mbacke ndax Mbacke lépp luñ ko ñaan defal nañu ko ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax di ñaan suñu borom kàtt nañ dafa ñu ay xéwal ba yéene am ci moom borom mottali ko si barke Serigne Fallou dëgg yàlla sant nañ bu baax a baax a baax màggal gi xéwal kese la sant nañ bu baax a baax a baax a baax alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf Serigne Fallou jërëjëf Serigne Fallou jërëjëf Serigne Fallou barke Serigne Fallou ak sa jaajëf jërëjëf waay Omar Dia Omar foo ban yëg-yëg di mbégte rek ndax sëñ Fallou ñi dama ko tuddee sama taaw te yàlla dafa def man sama famille yëpp Tijaan lañ man rek maa si ne murit sama taaw mi nii sëñ Fallou laa ko tuddee kii sama papa. waaw di ko bëggee rek fii moo fi ñëwee rek lépp man na daal waaw waaw moom du ma fi doyal daal du ma fi doyal moo tax ma ànd sama njaboot gi pour tooke leen si rek bu ëllëgee bu ma mënul it ñu fi ñëw waaw lool laa laay bëggee bu baax waaw am naa mbégte bu baax a baax a baax waaw ñi sama taaw kii moo si topp waaw maa ngi ñaanal sama soxna yi nag yàlla dafa leen xéewal barkeel seenu njaboot teel leen seen néegu sey ak sama yaay Anta Touré maa ngi koy ñaanal ma teel koo yóbbu mag ak maam maam Fatim Mbaye di bég baax ak sama mag ak sama rakk yi ñëpp maa leen di bég ah